salaamaaleykum wa rahmatullah bësal like abonné bës cloche bi boobaa vidéo bees bu ñu dugal nag da nga ci jot incha allah baax na jërëjëf bismillahi rahmani rahim yaa ayyuha allazina amanu yéen jullit ñi isa tadaayantum soo leen leblante bi day nin ci ab bor ila ajalin musamma bi nga xam ne dafa am fu mu jëm boo xam ne am na date boo xam ne si la ko borom war a fay si faktubu na ngeen ko bind wal yaktub na bind baynakum seen diggante kaatibun bindkat bil bind nag si manduteef wala ya bindkat bi nag bu mu bañ bu mu bañ an yaktuba mu bind kama allamahu laa comme na ko suñ borom santaane fal yaktub na bind wal yum liihi na ko sax na ko ko digte allazi ki nga xamante ni alayhi alxaqu moom moom moom bor bi ki moom bor bi di leble moom may wax bindkat bi muy bind li muy bind wala yattaqillaaha bindkat bi na ragal yàlla wala yattaqillaaha rabbana ragal suñu borom wala yabxas minhu say a liñ koy wax pour mu bind ko bu mu ci bàyyi dar na bind lépp comme niñ ko ko waxee fa in kaana allazi alayhi alxaqu bu nag ki nga xam ne nii moo moom bor bi mooy leble sa safihan dafa nekk ku néew xel koo xam ne xel mi des na mat aw daifan wala mu nekk ku néew doole mënul wax li ñuy sawaay mënul ko wax direct comme ni nga ko bëggee aw laa yastati an yumlihi wala mënul wax mënul sawaaji huwa moom de fal yumli na ko sax wala waliyuhu ki nga xam ne ni mooy kilifaam bu dee moom mënul wax borom bon bi mënul wax naka kilifaam waxal ki nga xam ne nii mooy kilifaam mu waxal ko bil adli nag wax nag si mandu na ko def comme ni mu waree wala yastasidu na seede saahiday ni ñaari seede min rijaalikum seen góor ñi nañ wut ñaari góor mu seede ko fa in lam yakun rajuleen bu di amuñ nag ñaari góor fa rajulun wa mraataani góor ak ñaari jigéen muy ñett ndax jigéen dafa gaaw a faat mimma tara daw na ñi nga xam ne ne gërëm ngeen seen seede wóolu ngeen leen a suhada i si seede an tudillu ihdahuma bu kenn si ñoom ñaar fàttee rek fatu sakkiru ihdahuma uxra kenn ka fàttali ko jigéen dafa gaaw a fàtte bu fàttee beneen jigéen bi fàttalil ko nag bon bi nii la demee woon pour mu leer wala yaba suhadaa seedekat nag buñ bañ isa ma duu buñ leen woowee bu demee ba bon bi am tuuti lant ñu woo leen pour ñu ñëw seede si buñ bañ wala yes amu bum bum taayi buñ bañ añ yaktu bu mu bind saxiiran aw kabiran lu rëy ak lu tuuti yëpp nañ ko bind buñ bàyyi dara nañ bind lépp ilaa ajalin ak dele bi mu war a fay dañ ko war a bind saalikumul xist loolu daal mooy li nga xam ne mooy manduteef indallah bu nga xam ne joyekoo na suñu borom li nga xam ne moom la suñu borom santaane loolu mooy manduteef wa aqwam mooy li gën a jub li sahaada pour seede suñu borom moo xam li gën moo wax nañ ko defee nii nañ ko defee noonu loolu moom mooy li gën wa adna an la tartaabu illa an takunu tijaaratan bu dee na ñoom ñaar d'accord nañ ne ñu bañ koo bind bu dee ab commerce boo xam ne mu dox seen diggante mu d'accord ne mën nañ ko bañ a bind xaadiratan boo xam ne ñoom ñu ngi ko teewee turiduunaha ñoom ñoo ko bëggee noonu bay na comme seen diggante ñoom ñeneen jarul ñuy bind fa laysa aleykum junaahun amuñ ci bàkkaar an laa taktubuha ñu bañ koo bind was wa ashid wa ashidu na seede isa tabaayantum jamono bi ñuy jaay ak jënd ñi leblante naam ku seede wala yu daaru kaati buñ buñ lor nag bindkat bi jamono bi nga xam ne am na complication buñ ko lor di ko sonal dem ak ñëw mu yéeg a ko wàcc wala saxiit ki seede woon it buñ ko sonal wa in tafaalu bu dee def ngeen ko nag di sonal seedekat bi bindkat bi fa innahu fisqun loolu bàkkaar la loolu ñaawteef la bikum boo xam ne def ngeen ko wattaqullaha na ngeen ragal yàlla wa yuallimukumullah yàlla jàngal leen soo leen ragalee yàlla jàngal leen wallaahu bi say shay'in alim suñ boroom lépp xam na ko dara na bugg ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bësal kolos bi abonné boobaa vidéo bu bees bu ñëw rek danga ci jot incha allah